dañuy gëm lenn ci tawraat weddi lenn afa tuminuuna bi baax dul kitaab wa takfuruuna bi baax di ngeen di gëm lii weddi lii loolu la yàlla laaj banu israil ñun tam laaj nañu ko ñun dañuy alxuraan dañuy gëm lii weddi lii waaw bu fekkee alxuraan dal mat na ñetti xaaj benn bi lañ jëm ñaari moom na tege fee la la la yahood ya waxoon yonent bi dañoo bëgg nga changer leen ñu aaya yii waaw changer leen ñu loi yii mooy leen sañu moo ci changer leen maa yakunu lii an ubaddilahu min tilqaa'i nafsi waaye ni ma koy waxee aaya ba ne ko rey rey leen ko yéen a ngi koy doxal aaye bu ne ku sàcc dagg leen loxo bi yéen a ngi koy doxal aaye bu ne ku njaaloo duuma leen ko tiimar yaa yéen a ngi koy doxal mukk bëri na kon dafa am lu ñu dem ci téere bi am lu ñu ci wàcc waaye yàlla nen fa maa jazaahu amulu fay man yafaalu zaalika ki def loolu minkum ci yéen illa xisyun lu dul gécc gécc fil xayaati dunya ci dundu adduna bii yàlla dalay seetaan loo duggati koo xam ne da ngaa gëm alxuraan lii weddi lii loo duggati yàlla seetaan la te ku yàlla seetaan te mel ni mbir du dox waaw wa yowma alxiyaamati mu bisu taxawaay ba yuradduuna ñu delloo leen ila ashaddi alazab ca mbur mbugal ma gën a tar ila ashaddi alazab ca mbugal ma gën a tar yàlla na jàll mu ko wa ma allahu bi gaafilin yàlla sàgganewut amma taamaluun lépp lu ngeen di def amul lenn lu ñu def lu yàlla sàggane amul lenn lu ñu def lu yàlla fàtte lu waay def lu bàkkaar ba tuuti tuuti yàlla bàyyi na ci xel bind na ko te bu yomal xiyaama ngis ko wax ne maa li haada alkitab laa yuxaadiru saxiratan wala kabira illa ahsaha yomal xiyaama la gaa yi wax waaw téere bii lu mu xawle man sama mbàkkaar fii ni ma ko xeebe woon ndekk bind na ko waaw man ñaar dërëmi waa ji ma fàccoon daal téere bi sax bind na ko dix francs waaw kii ne man day jàkka ja mas naa kaa dem fàcc ci peeru dàll téere bi sax bind na ko waaw peeru dàll plastique rek fàccoon naa ko ci jàkka ja téere bi bind na ko yàlla yooyu sax du ko fàtte yow mi ñëw ci jàkka ji sax ñu sàcc say dàll nga fekk ay dàll ci buntu ba sol ko te sa yooyu sax loolu sax yàlla fàttali parce que léeg-léeg gis kuñ sàcc dàllam mu gis ay dàll ne ah naa jël yi kon yow kay def yéen bàyyi ko ma waaye da gis koo xam ne ci day ñëw rek fekk fay dàll rek na naa jël yi daal di sol lu dàll ya xar xar xar dàll jàmbur bi jël yàlla yooyu li muy tudd sàggani wu wa ma allahu bi xaafilin amma taamalu ulaika ñii allazina ñoo ñi nga xam ne istarawul xayaata dunia dañoo weccoo dundug àdduna bil axirati ci dundug àllaaxira dañoo weccoo dundug àdduna bil axirati ci dundug àllaaxira moom la maam borom tubaab yi tuddee leer ak lëndëm laa tashtari dunia bi oxra yaa fata man baa nuuran biddu jaa fa sa yëndëm mu ne bul sàggan mukk ba weccoo leer lëndëm gis boo joxe lëndëm ak leer jël lëndëm su àllaaxira da nga mat sa baram laa tashtari dunya bi uxra yaa fata man baa nuuran bi duja fa si yëndëm ci benn xasidaan bu ñu wax kun kaatiman warta yàlla mën nañu def loolu fala yuxaffafu duñu oyofal al azaabu mbugal ga anhum ci ñoom wala hum yunsaruuna te kenn du leen dimbale mbugal ga du oyof te kenn du leen dimbale mbugal ga du oyof te kenn du leen dimbale fii nag saa su ne boo ko jàngee da ngay daal di dégg loolu chia yi di wax naan bésu altine bu jot dañuy oyofal mbugal gi ci Abu Talib gàmmukat yi it jël nañ ko léegi ñu ne ndaxte bi yonent bi juddoo dafa kontaan ba goreel ab jaamam yàlla nee na fiyee fala yuxaffafu anhum al azab ku dugg sawara kenn du la wàññil climat bi waaw lii moom mooy alxuraan lee nag nattum xel dong la mooy bu yàlla ne taw woo contact bi moom moom ñëpp lay laaw rek laa tusiibanna minkum xaas waaw loolu la demee adduna nag bu la neexee tàngoor yi nga dugg sa néeg daal sa climatiseur adduna waaye àllaaxira moom biir sawara y a pas de climatiseur amul wantaay amul ventilateur ñëppay tolloole degré tàngoor yàlla ñu yàlla musal ci yëpp benn baaxu ci wallaay wa laqad aatayna Muusa joxoon nañu njàmme wala fi yay tuddee Muusa njàmme arab moom moo ko tuddee Muusa tur bi mooy ndoxam garab ndax ba ko yaayam sànnee ca dex ga ba mu séeyee ma nga nekk ca garab ga garab ga kale ko bañ koy for ñu fekk garab kale ko ñu daan ne sajaratun fekk ko ci ndox mi ñu ne maaun ñu boole sajaratun ak maaun biñ ko walbatee nag muy muu ak saa muu muuya mooy ndox ci électrique muuya sajara mooy garab ñu ne muusa xale biñ fare ci diggante garab daan ndox ma mu ngi nii mu daa tudd noona waaw wala dina koy def buñ fi foree benn waay ci atum xiif ba dañ koy wax dañ koy tuddee rafle mun lañ ko tuddee rafle wala xiif tur yi mel noonu waaw tabarkàlla suñu dëkk mas nañuy loterie ba gañe ñetti million am na ñu fa tuddee atum million yi ba tey waaw suñu dëkk ma dëkk dañoo ko si woon ñun ñëpp jënd loo loo loterie gañe ñetti million ñu tuddee ko atum million ya di saa baaxee séddale bi yu bees rek tabaarkàlla keroog lañ ko jëgaane bisu tey defe naa fi ne buñ calculé lañ fa ñàkk fi nekk nii te war naa dem ci quatre millions cinq wallaay wallaay allahumma amin wala xad aatay naa joxoon nañu Muusa njàmme alkitaaba téere ba tawraat wa xaffay naa ñu tofal min baadi ca ginnaawam bi rusul ci ay yonent ba Muusa wéyee yeneen yonent toppaat nañ ca yeneen yonent toppaat nañ ca ndax xam ngeen ne jamono yu Shuaybu la Muusa ñëw waaye ginnaawam ñoom Ibrahima ak Isxaaqa ñoom ak ñi demee ni ki ñooñu ñëwaat nañ ci ba ni Isa ñëwee alayhi salaam moo tax mu ne wa qaffayna min baadihi bi rusul yonent yooyu bi ñu ñëwee wa aatayna Isa ñu jox Isa ibnu Maryam kay doomi Maryam albayinaati yu leer ya moom fu alxuraan tuddee Isa rek tudd yaayam ngir nit ñi xam ne Maryama du jabaru yàlla xam nga nit ñi bëriwul fu ñuy toog di tudd seen jabar yi yàlla bu fekkee di tudd Maryam yow mi dégg loolu da nga xam ne kon Maryama du jabaru yàlla plus li nga ci xamoon moo tax fu mu tuddee Isa rek daal ne ibnu Maryam waaye bi mu waxee Moussa léegi waxut waxut ibnu Imran bu waxee Daawuda du wax ibnu Suleyman bu waxee Muhammad du wax ibnu Abdullah waaye fu mu ne Isa rek ni ibnu Maryam daal ci tudd yaayam ndeysaan wa ayyadnaahu ñu dooleel ko bi ruuxil qudus ci Jibril xel mu sell mi noonu la ko ay mbokkam di tuddee chrétiens yi xel mu sell mi ruuxul qudus moo tax bu ñuy génn seen kër dañuy wax yàlla ju mag ji yàlla ju ndaw ji xel mu sell bi ak man trinité ñett yi nga daal di koy ñeenteel ak man su ko defee pour yàlla ji sàmm la gëm nañ ko lool nag duñ ko fàtte mukk ñun kay ñooy génn suñ kër fàtte wax bismillah waaye ñoom xaw nañ ñu ko wàll sax léeg-léeg nga seen kuy julli sëlmal di ko def te du ko tey julli ba noppi di def nii te te te te loolu mooy croix bu ñu demee ci kanam ak kanam wala ca surat nisaa yi yàlla dina ko gën a leeral waaw yéen banu Israël afa kullama jaakum mu ndax da ngeen fi nar a nekk rek saa bu leen dikkalee rasulun ab yonent bimaa ci loo xam ne laa tahwa anfusukum neexul seen bakkan istakbartum ngeen rëy rëy lu bañ koo topp da ngeen bëgg daal yonent bu ñëw ngeen essayé négocier ak moom fa fariqan kuréelu yonent ngi nii kazzabtum yedd ngeen leen wa fariqan kuréelu yonent ngi nii taqtuluna rey ngeen leen waaye yéen lu tax lu tax ngeen bëgg yéen banu Israël yonent bu ñëw lan indi bu dëppoot ak yéen ngeen rey ko mbaa ngeen weddi ko ak yonent da ngay jéem a adopté sa bopp ci lim indi waaye doo jël lim indi adopté ko maanaam xëcc ko mu ñëw yow yaa koy fekki yow yaa war a fekki luwaay yàlla yi waaye bul yoon ñoddi luwaay yàlla yi mu fekk si la waaw loolu baaxul da nga jéem a fekki luwaay yàlla yi te xam ne loolaa la jig waaye ñoddi luwaay yàlla yi mu fekk si la su boobaa loolu du baax banu Israel nag loolu lañ doon def bu yonent ñëwee daal indi luwa ñu ne ko eh su jubee topp seen bànneex la ca topp seen bànneex ñu topp ko la dëppoo de seen bànneex nag salaamaaleykum gis nga fi ne ñun lislaam liñ ci gën a neex ñun mooy tabaski muñ ci gën a neex tegu ba gàmmu tegu ba aj màkk yooyu dafa ñoo neex lool ci la bokk gaa ci la bokk waaye muñ ñun muñ ci gën a neex yi ñu ci gën a naqari nag nga xam ne moom yooyu moom foo ko lala ñu ne hu merci mooy jàpp benn waay ne kii kat dafa am ndaw sum joteel ba ndaw su ëmb na léegi ñu war koo dóor téeméeri yar boobu moom ñëppay téye sa loxo nëpp na mukk te ni julli ware noonu la loolu ware ni aj màkka ware noonu la loolu ware waaye bii moo ñu neex bëgguñu bii gis nga ci ñaan bu ñuy joxe ñaan dinañ joxe faatiha dinañ joxe fàllati dinañ joxe naasi da nga dégg alam nasara ñoom lii laafi ñoom yaasin waaye tabat ya daa ñu jàng tabat ya daa ñaanal ko am na lu muy faj de waaw mais gis nga gars yi ni ñu ko meree rek dañ koo embargo kenn du ko laal mas mas nañ maa ne doxal ñu julli ci Louga ma jàng tamit daal giñ naa jàll na ma fa nekk ba nu mu fa jógee am na papa su ma ne suñ ma leen xaamale rek mu dem jàpp ba nu ma fa jógee yow mi jullee tamit daal mu ne mu ne mu noppi naa julli sa ginnaaw waaw du alxuraan alxuraan la imaam ne na am na lu muy faj bu jógee ngeen seet ko waaw nga noté ko parce que dañoo bàyyi laaj yi léegi dégg nga ba ba ba quatre heures mooy cinq heures mooy quart dégg nga incha allah waxaaloo ñu ne ñoom yahud yi li tax ñuy def lii xuluubu naa suñu xol yi xulfun dañ koo kànnaar waaw ñu ne daal bëgg nañoo topp yonent yi gaa waaye comme dañoo kànnaar suñu xol yi duñ ko mën a gëm laa ilaaha illa yàlla jàll musal bal yàlla ne déedéet kànnaaruñ ko li fi ne kay laanahumullaahu yàllaa leen rëbb bi kufrihim ca wedd gañ wedd yàlla yàlla moo leen rëbb rëbbum yàlla mooy yàlla day dàq yërmandeem ne ko bu mu jëm ci diw ku yàlla rëbb nun lay def soo dee jigéen boo meesoo yàlla day wax yàlla bu yërmande yàlla ñëwati ci yow ci bi ngay dund ak bi nga deeyee sooy meesu mbaa ngay sol xàpp ki yonent bee ko wax nag lii waxuma ko laana allahu lwaasilata wal mustawsilata ba hadis ba jeex waxuma ko kon rëbbum yàllaa ngoo naka noonu góor guy solo nu jigéen góor guy solo nu jigéen waxuma solo ay legoos waaye góor guy takk ay caq mbaay ceen mbaa ñaari moom tam mi ngi ci biir rëbbum yàlla yunti bee ko wax nag laanallahu rajula yalbasu lisata al mara wal marata talbasu lisata rajul yunti bee ko wax man waxuma ko sallallahu alayhi wa sallam dégg nga de fa qalilan ma yuminuun fa qalilan néew na ma yuminuun li ñuy gëm yahud yi seen gëm dafa faible tuuti la maanaam amul amuñu quantité bu doy ci iman maanaam iman dafa war a foor ba mën laa yëngal mën laa traîner mën laa téye waaye boo fi yoroon oto train yi lim ciy sol nu mu tuddati liquide bi ñu ciy sol bu doyut wala boo nga def ca benn toq bis boo jegeeb xale yenu ko rek yi super yi def xale jigéen yi nga xam ne kenn du ci musóoru kenn du ci waddu kenn du ci muuru toilette rek tabarkalla ak xeetal boo amati frein sallahu tabarkalla walamma jaahum ba mu leen dikkalee kitaabun ab téere ñoom yahudi min indillahi jóge fa yàlla musaddiqun dëggal lima maahum la ñu yore wa kaanu te nag nekkoon nañu min xam lu jiitu téere ba yastaftixuuna doon laaj ala allazina kafaroo ci li ñuy weddi maanaam doon nañ nekk naan ah ñun de jamono lëndëm na ay buñ amaatoon benn téere ak bu yonent loolu lañ doon wax yastaftixuuna ala allazina kafaroo falamma jaahum ba mu leen dikkalee maa arafu la ñu xam ñoo ko doon ñaan naan yàlla yàlla yónnee ab yonent bu indi téere yonent ba ñëw muhammad indi téere sallallahu alayhi wa sallam ba mu dikkee kafaroo bi ñu weddi ko ñoo ko laaj ba noppi mu dikk kafaroo bi ñu weddi ko daan ne ko yàlla yónnee wu la alxuraan ji yaa ko jabatu bu yàlla doon yónni du fekk mag yi dëkk bii mu bàyyi leen fi di la yónni waaw du fekk magi dëkk bii mu bàyyi leen fi di yónni gone gu toll ni yow ndeysaan yàlla mu ne fa laanatullahi rëbbum yàlla alal kaafirina yàlla na wàcc ci ñu weddi yàlla amin rëbbum yàlla yàlla na wàcc ci ñu weddi yàlla bi sa mastaraw bi sa bon na mastaraw li ñuy wecceewoo bi ca loola an fusarum seen bopp li ñu weccoo seen bopp baaxul mooy rëbbum yàlla lañ weccoo seen bopp lan lañ weccoo seen bopp ñaaral ba ay yakfuru ñu weddi bi ma anzalallahu ci li yàlla wàcc weddi alquran weddi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lu leen ko yóbbee baxyan réew rek yàlla mu ne baxyan réew rek réew dong moo tax ñu weddi yonent waaw an yunazila allahu yàlla wàccee min fadlihi ci mbaaxam ala man yasaaw ci ku ko neex min ibadihi ci ay jàmm yàlla moom moom jaam yi bu yónni mooy tànn ka ko neex kenn du ko tànnal di ko proposé yàlla defal ñu kii yónent déedéet benn yoon la ko defoon Moussa la ko defaloon duudu ko def moo tax yahud yi fa baaw bi xadabin ñu delloo ku mer ala xadabin ci kaw mer walil kaafirina yéefar yi am nañu bu yawmal qiyaamee azaabu muhiin mbugal mu doyadi mbugal mu doyadi mbugal mu ñàkk solo te métti yàlla ñu jàll musal mbugal mu doyadi mooy mbugal moo xam ne boo séenee ka ñuy mbugal buy jooy da nga koy da ngay defe ne daa réew dañoo jàpp ab sàcc gaa yi di ko dóor sàcc bi ne këj bi naar bi ñëwee naaru naaru gànnaar ne leen bu ngeen ma joxee suukar ak warga day bu ma ko jàppee dana jooy sàcc bi ne ko naar yow bokkoo ci gaa yi wutal naar bi suukar ak warga naar bi dem ci bitig ba jënd diwlin teg ko ci pool bi ba mu saan fab benn geenu fas di ko ci sëpp di ko wiccax sàcc ñaari yoon la wiccax rek sàcc bi ne wuy sama ndey naar bi ne waxoon na dina jooy gis nga mbugal yu tuuti yooyu la yàlla di mbugal ñu ko weddi bu yomal xiyaamee moo tax gumba gi daa ñëw fekk ñuy duma sàcc beeg mu ne siikam leen ko daal di gëm mu ne siikam leen ko ñu ne luy siikam mu ne da ngeen di wut ay dëkk diggi sump bu ngeen ko jàmmee ci bay banatu dama ko ci biir laa ilaha illa paay jàpp gumba gi si sàcc bi siikam ko loxo yi na jàdd waaye ba muy dox ba defee gumba ga ne kii na sama gumba ga mu ne ana kay mu ne ko waaw yaa yaa ngi doon digal ca sàcc ba nañ nañ ko doon def mu ne ko tijji xam nga sàcc baaxul te sàcc bi lay wax sàcc bi téye ko ndànk ba ca teen ba ne ko ca puy fay ko bisam waaye gis nga yàlla bu yemal xiyaama am na ñoo xam ne nii la leen di mbugal yi mbugal yi tuuti yooyu te saf ci métti mooy azabul muhin yàlla ci yàlla musal ndax ñoom wa isaa xiila lahum buñ leen masaana wax aminoo gëm leen bi ma ansallahu ci li yàlla wàcc xaaloo ñu ne ñun nu'minu dañuy gëm bi ma unsila alayna ci liñ wàccee ci ñun injil lañ mën a gëm wa yakfuru nañuy weddi nag bi ma waraahu lépp lu nekk ci ginnaaw weddi alquran weddi beneen téere bu dul seen téere wa huwa yàlla nee na te kat moom alquran alxaq moom rek koy dëgg léegi wa huwa alxaq alif googu la gis ak lam ji mooy wane ne alquran rek koy dëgg bu ne woon wa huwa xaqun mooy alquran dëgg la waaye leneen mën naa nekk dëgg waaye bu ne wa huwa alxaq mooy moom rek koy dëgg mooy yàlla ni mu ko taarife looloo tax moom rek mooy dëgg musaddiqan lima maahum mu ngay dëggal nag la nga xam ne moom lañ yore ñoom yahudi xul nee leen bu fekkee gëm ngeen seen téere fa lima taqtuluuna lu tax ngeen di rey ambiya allahi yonent yàlla yi comme nee ngeen gëm ngeen seen yonent gëm ngeen seen téere lu tax ngeen di rey ambiya allahi yonent yàlla yi min qablu bu njëkk in kuntum muminina bu ngeen nekkee ñu gëm kay wax dëgg yàlla mu war leen a rey benn yonent ndax yonent yépp yàlla leen yónni ñoom ñaar ñoo war a yem ci yow wa laqad jaakum dikkaloon na leen Muusa njàmme bil bayyinaati ca layu leer ya les dix commandements alliwa yooyee Muusa yoroon mooy al bayyinaati alkitaab nag wala tawraat mooy ab téeréem yàlla da ko joxoon dix commandements téere yi nag ñi jàng ñi jàngale histoire wax ju ne ñu ngi ko ci wax lii la ko waxoon nag laala alxuraan nag indiwu ko su ma taxastum ginnaaw ba ngeen jàpp ani ay jëla sëllwa def ko yàlla min baati ci ginnaaw Muusa wa antum te yéen ba ngeen koy def xam ngeen ne zaalimoon ay tooñkat ngeen lii yàlla nee na yahud yi def nañ ko te xam ngeen ne jaar na suñu bind démb jàpp aw nag def ko yàlla soo ko bësee mu nañ ni yahud yi ñu ngi koy defaraat nekk nii mooy doom yooyu xale yi di foye lu lu fie bi demee ni ko yooyu bëri na ci yoo xam ne boo koy laal muy jooy waaw doom doomi foyekaay yooyu am na ci yoo xam ne boo koy laal muy jooy na di wax ay mama ñoom seen yooyu yahudi yaa ngi koy indiwaat ndànk ndànk ba baa ñu koy defati aw nag ñu jàppe leen ay yàlla yàlla jalo wa is fàttalikul axasnaa misaaqakum jàppoon nañu ak yéen kóllëre yéen tubaab bi wa rafa'naa ñu yëkkati fawqakum ba mu tim leen ak tuura doj wa xusuu maa aataynaakum ne leen jàpp leen liñ leen jox bi quwwatin ci doole wasma'u te ngeen dégg banu Israayil bi yàlla wàccee tawraat ne leen dee leen def li ci nekk ku rey rey leen ko ku dagg bakkan dagg leen bakkanam muy ànd na nafsa bi nafsi wala ayna bil ayni wa sinna bi sinni ku fokk bañ fokk leen bañam dañoo lànk yàlla déqati doju ngand ba mu tiim leen ne leen def leen ko gaaw ñu commencé ko appliquer yàlla delloo doj ba ñu teg seen xaaloo ñu ne yàlla sami naa dégg nañ li nga wax wa asay naa waaye ñoo lank yàlla ne bu ma leen doon topp indiwaat doj bi bu fekkoon yàlla nit la day indiwaat doj ba rek ne leen accu waaye yàlla du fayantoo noonu dafa am fayda waaw xaalu ñu ne sami naa dégg nañ wa asay naa te ñoo lank wa usibu dañoo jaxase fii xulubihim ca seen xol ya ala ijla sëlluwa sëlluwa daa jaxase seen xol bi kufrihim ndax seen weddi yàlla ga caay caay gañ doon def ba ñuy jaamu nag wa loola moo tax foo fekk ab yahud day saay saay xol nee leen bi sa maa yaamurukum bi sa bon na maa yaamurukum lim leen di digal bihi ci moom imaanukum seen gëm gi bu fekkee gëm ngeen yàlla yéen de li leen seen gëm gi di digal baaxul in kuntum mu'minina bu fekkee gëm ngeen yàlla gëm yàlla goo xam ne yonente boo xam nga rey gëm yàlla goo xam ne yonente boo xam nga wedd gëm yàlla goo xam ne kenn ku nekk sa yàlla ci si biir kër yàlla mu ne ah bi sama yaamurukum bihi imaanukum in kuntum mu'minin xul nee leen in kaanat lakum bu fekkee am ngeen addaarul axiratu këru alaxira indallahi fa yàlla xaalisatan mu nekk lu sell ngeen moom ko yéen dong yéen yahud min dooni naas yi te nit ñi bokkuñ ci bu fekkee yéen dong moom aljanna fa tamannal mawta mi bët leen a dee dugg fa gaaw in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg yahud yi dañu ne ñoom rek ñooy dugg aljanna ku dugg ku nekkul yahud doo dugg aljanna laa yadxulul jannata illa man kaana hudan aw nasaara ku dul tubaab doo dugg aljanna yàlla mu ne bu fekkee loolu ñaan leen ma ngeen dee ma rey leen ngeen dem waaw waaw aljanna moom daa neex amul dépense ah amul woor amul woor aljanna amul tàngoor amul daa ciy naqar yooyu te doo dee yàlla mën nag yéen yahud yi bu fekkee nee ngeen aljanna yéen doo nga ko moom tàllal leen seen loxo ñaan ma dee ma rey leen ngeen dugg fa ah yàlla tontu leen walan yatamannawnahu abadan walan yatamannawhu abadan duñ ko duñ ko ñaan mukk duñ ko mébét mukk duñ ko mébét mukk doo dégg mukk yahut bu ñeme dee bi maa xaddamat ay diihim li seen kanam yàlla ne na maa ngi leen di xamal leen ba ba aggulee tukki di ngeen gis yahut bu ñeme dee wasalaam ba ba aggulee tukki yàlla ne na du ngeen gis yahut bu ñeme dee waaye ba ba aggulee tukki doo gis ku gëm yàlla ragal dee koo gis mu ragal dee gëmut yàlla wala yahut ah moo tax xeex ba nekkoon Bosnie ba yë- ba yahut ya def ya ñuy def ak nasaraan yi kere ba jullit ya laxasoo woo waa adduna si yépp ne leen kaay leen ñu jihaad yi kere bañ fa wàccee la jihaad ja jeex Bosnie léegi di ngeen fa dara jeex na xam naa li si daa tuuti waaye gaa yi ngi doon bind ku bëgg a jeex ci jiyaat na ñëw bañ ne fa cëpp la guerre ba jeex Afghanistan yi noonu Afghanistan moo di yëngoon moom bu gisee ne tey ngay dee moom mujj na ci parce que ku bëgg a dee kenn mënut a xeex ak moom te jullit moom moom kii dem ci guerre bi naan ñaanal leen ma ma des ca waaye kii kay ku mën a xeex ak moom bokkut ak kii ndékki naan ma dem ma dem si ñëw moo tax boo ko jekko mu samp xelam waaw yahud tabarakàllah moo tax bu ñu naan xeex Seydina Ali mi nga xam ne du gis awra léeg-léeg mu xàcc jaas yi rek yahud yi duñ sol tubay rek daal di woo ko